soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. nafa li xayrillah xabli findari bi ali badri onso di bi suñ tuwaa mën a bind <laughs> mu ni lafa nafa li xayrillah fi ndakaaru kulla asan li jërofa makaaru xanla ma ni rahmaanu fii safina bi ànd na ni xat di musil madina nee na laataa may dem si géej gi yàlla xam xam naa ne maay liggéeyalu ku tedd gi naara mi ma waxtaanal gis naa nit ku yaru gis naa nit ku baax gis naa nit ku amuk dal mais gis naa nit ku am respect kon nag bu dikkee seet ma dama bëgg nga jox ko ci bu mat sëkk. Naki Naki foog nga dimbali ma sonn naa trop si xeex bi xeex naa bu sonn sa ndimbal rek laa yaakaar. buy maa gis xale bu mool ci koñ bi booy. da ngay gisati xale bu mool ci koñ bi. xale bi daal booy man maay dox muy dox. may dox muy dox ma topp ci ginnaawam ba mu ne meng biir ka ñoom papis. ah kon xàmme woo ma. non non yow moom. xàmme ma la ci koñ bi quoi. c'est vrai pourtant ci koñ bi laa dëkk man maay magu maman. maman. Nara lan moo tax nga dem dëkk ak nit ñi bàyyi ma. Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble.